ñépp wax nañ ne foo masaana toog ak moom mu wax la li ne ci yow loolu ko yàlla defaloon looy nëbb sëriñ Babacar Si bul teew ci kanamam booy ñëw mu di la ko wax ñu bare daanañu am ñëx ñëxi xol ñëw di ziyaar si booy toog rek mu wax la li ne ci yow te loolu ñun dañu yàlla daf ñu dimbali ñu toog ak ay magu sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu ñoo xam ne sëñ baaba Babacar daan wax dama ni ñu ne ah dékku ko nopp ñu ne ku ku mës a sukk ci kanamam jommal na la ndax dana la wax li ne ci sa biir ba nga xam ne du sa moroom sëriñ Babacar si ànd ak loolu yépp dàq jaamu yàlla sëriñ Babacar sëriñ Abdou nee na sëriñ Abdou nee na ñoom de moo leen jur musuñoo bett sëriñ Babacar si mu toog ferankulaayu musuñu ko bett mu toog tàllal ay tànkam moo taxoon sànq ma junj ne ñeme ma wax ni ku yaru la ñemewu ma ko wax waaye su ma waxee acte yii danañu xam lan mooy jikkoom ku yiw la buy lekk sax du ferenkulaayu mbalaanu wasifa noonu toogaay bu yiw la yoroon toogaay bu jekk la yoroon toogaay bu am téggin la yoroon moo tax mag ma nee na am na benn góor gu ko ma bàkk ci góor ña ko daan wër ca xaal baag taar baag hëy bëgg nañ ci moom ne ko assi ah, xanaa li ngay zikkar ak li ñuy zikkar da dul benn parce que résultat bi ne ci jëmmam newul ci seen jëmm mu ne leen wallaay ñoo bokk lu ñuy zikkar waaye teggin yi teggin yi ma ko jox ngeen ko joxul waaw teggin yi mu ko jox ngeen ko joxul koo xam ne bu masaanu julli géeye ba safa witre sëriñ Abdu nee na bu toogee sukk di jaamu yàlla gàpparu ni kuy julli du changer position ba fajar du changer position ci xadara du changer position ci julli bu toogee di wird ba fajar du wéeru du changer position yooyu teggin ëpp na loolu ku dëkkul ak yonent bi mënoo am teggin yooyu sëriñ Babacar Si sëriñ Abdu nee na sëriñ Babacar Si radiyallahu anhu ci ragal àq ci ragal àq mosoon na am xar moo xam ne cuxur lañ ko tuddee xar mu rafet ras bu rar bo xamne ne bu la neexoon nga wax ne amul ci senegal mu fonku xarmi mi diko di ko yar ci eutem ñepp yëg ne xarmi mi sëñ Babacar si daf ko fonku xarmi mi bes rek sex ci dugubu bu dekkando wam dugub ci xam bo xamne dekkando ko mom ñu di ko wax di wax wax ji di wax wax ji xarmi mi na dugub ja te benn lanc la ci def benn lañc benn seex ñuy wax wax ji ba mu yegsi ci Serigne Babacar Sy radiyallahu anhu Serigne Abdou ne bi mu ko yégee ak li muy fonk xar mi yépp da leen a woolu bën dikk mu ne lu mu ca lekk ñu ne ko benn lanc rek la seex ci paanu dugub bi mu jël paanu dugub ba mu fees fey leen ko ci benn sëq bu xar jël jàpp xar mi ne rendi leen ko ñu rendi mu ne jël leen yàpp wi na génn kër gi kër Si xajootul ak xar mi ci kër gi parce que xar mi lekk na àq sëñ bi googu sàmm gu mel noonu ku ko mën ana borom bëy yi këpp ana ñiy jël alal yi jàmbur yi di tëb ana ñuy dóor nit ñi marto ana ñan ñoo def al aklu am waa kër si daal mbooleem luy tedd nga ak mbaax ak jikko ju rafet ak luy tax nit di dem ci kanam yàlla dajale woon na ko ci jëmmam joojule am kóllëre nag am kóllëre ñépp ko xam nee nañu foo ko masaanu nuyu boo ñëwaatee du la laajte loolu kuy bàyyi xel nit moo koy def koo ànd ak ñëw ci moom soo dellu si waatee ànd ak moom mu laaj la ana diw parce que dafa fonk kóllëre buggul taxali ko mag ñi nee nañu guro bu ko daan yéy guro buy yëy guro du ko xar buy yëy guro du xar guro bi du ko xar ñu ne ko waa si lu tax doo xar guro bi mu ne ah ànd boo xam ne ba ko yàlla di boole Babacar fekkee wu ko Babacar du leen taxale noonu la koy xàmpee rek lam ca soxla li ci des mu bàyyi kooku xam nga du tàqale diggante ana ñiy tàqale diggante nit ñi tey ñiy tas jabaru jàmbu yi ñiy tàqale yaay ak doom ñiy tàqale xarit ak morom ma xanaa fàttali ko woon Serigne Babacar si waaw nee na gor du fen mukk gor du sàcc mukk waaw nee na góor du fecci kóllëre te gis nga njàngaleem yooyu moom da koo jëfe ñépp gis ko moo tax gis nga mbokk yi sëriñ Babacar Si boo gisee ndaw ñi dof ci moom mag ñi dof ci moom parce que dañoo gis ci moom luñ gisul ci kenn moo tax sëriñ Mansour Si woyoon ko ca woyam bu bu rëy ba ne cheyqun hada wahtada bi hadihi zumarun min xaytu maqtabasu min nuurihi fadwaahu waaw ah. nee na sëriñ Babacar Sy sëriñ la bopp dafa jub <laughs> du sëriñ comme nii de nitu yàlla bu jub di jubale nee na sëriñ sëriñ kër Sy ci la taalibe yi daan jube ku ko mës a jege jub nga cuub na la ba nga mel ni moom ci jikko cuub na la ba nga mel ni moom ci melokaan cheyqun hada wahtada bi hadi zumarun ay junniy junniy doomu aadama bay mbay donta moo daan wax ni fu si xaaj Malick defoon benn Serigne kër si fukkal na ko yal nañu ko yàlla fayal moo tax